jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara niñ koy baaxu ji def fajaru dimanche mooy ànd ak yéen ci min kunoo si sunna min kunoo si sunna di jataay yoo xam ne yéen a ngi koy am fajaru dimanche di ko jële ci njàngalem sallallahu alayhi wa sallam mam jàngaloon saxaaba ya ko waroon saxaaba ya jàngal ko taabiuuna ya taabiuuna ya jàngal ko asalafu saalix asalafu saalix di ko jàngale ba démb sunu bind bii nu weesu ngi nekkoon ci sàkku xam-xam la ko jiitu woon nekkoon ci soccu sàkku xam-xam dégg ngeen liñ ci waxoon te borom bi nee na mooy teral ña xam ak ña ko gëm borom bi ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ku yàlla namm ci yow lu baax fii ak fële dangay xam sa diine mu wax ne ku jóg sol saw dàll di wuti xam-xam yëgal ne sol nga saw dàll wuti aljanna yooyu lañu gisoon ci suñu bind bii nu weesu nu ñëw ci tey tey kon ci beneen bind bu bees mooy sàmm làmmiñ sàmm làmmiñ wattuwu làmmiñ ba yàlla araamal mu wax ko moom làmmiñ boroom làmmiñ wi dimbali ko ba làmmiñ du ko wax mbokk yi lan mooy làmmiñ làmmiñ mooy suux wu ndaw woowu nekk ci biir gémmiñ làmmiñ mooy suux wu ndaw woowu nekk ci biir gémmiñ te bu ko nit tàllalee morom ja tàllal mënoo xool làmmiñ wi xam li kii di wax ba làkk la dégg làmmiñ mooy suux woowu ñaari nit du ko réyle ba du xàcc gémmiñ ga da nga naan da ngay mu ne cëll ci biir waaw boo ñebee daf naan cëll ci biir boo ŋaayee mu génn yàlla pour nu sàmm sunu làmmiñ daf na waxoon lu am solo te ci alquranul karim ci suuratu qaaf maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid maa yalfisu min qawlin borom bi ne nag kàddu goo génne allahu akbar borom bi ne na kàddu goo génne si muy wax ko benn raqib bind ko walla atiid bind ko kero bi nga matee jigéen di jigéen walla kero ba nga matee góor di góor kañ la jigéen di ma jigéen mooy bis ba mu gisee deret di génn ci moom te du feebar bis ba jigéen gisee deret di génn ci moom te du feebar ba baa ay mbokkam di ko suul raxasu wan ko ginnaaw ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu la lépp lu mu wax ci diggante bi benn raqib bind ko wala atib bind ko raqib yor dossier am yor dossier bu dee góor kañ lay mat góor mooy bis bi mu njëkkee tëdd gént di jaxasoog jigéen yow man yu génn ci moom bés boobu ba baa ñu koy sóol moom it lépp lu mu fi wax raqib bind ko mbaa atit bind ko moo tax ku yeboon da mel ni suñ Cheikh Mbàkke rek radiyallaahu taala anhu ne cell rek ku yebu noonu ngay mel hmm? waaw maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mbokk yi xam nga li xew léegi ci pénc mi mooy ubbil nit ñi téléphone yi ne leen acca wax leen seen xalaat hmm. wax leen seen xalaat xoolal ba njaayee jóob tàmbalee def wax sa xalaat ba fii nu toog bu fekkee ne baat bu ba ci siis wax <laughs> raqib bi ñu ne ko la atit baat bu saasin bu wax raqib bind na ko wala atid léegi fal yansur euh, nafs fal tantur nafsun ma qaddama li bu saa si mbuub toogee day daal di calculer kero booba moo tàmbalee woote ba léegi yat lan moo ci gën a daal xelam ndax raqib bindal na ko atid bindal ko <laughs> raqib yi muy bind mooy yu jag yi atid yi muy bind mooy yu jagut yi léegi nag bañ tàmbali wax sa xalaat ak léegi yan nga fi wax te jagut saa si mbub yan nga fi wax te jagut ba ci siis yan ngeen fax tem jag ya jag raqib bind na ko ma ngi leen mu denc leen ya jagut atit bind na ko ma ngi mu denc mu yow ku yeb far noppi di ku yebu noppi tey peese yi ngay wax ndax alxuraan wax na ko de maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqib waaye du yam ci wax sa xalaat dong fi ne groupe whatsapp yi bu ci nekk am na wax sa xalaat nga yendu ci groupe bi di yendoo liir yendoo joxe ojo rek tabarkàlla te ojo boo yónnee raqib dana ko enregistré wala acid dana ko enregistré boo yónnee xaste mbaaw saag mbaa yàquk bokk ah, boo noppee rek rëggal ne acid bind na ko ndax ma nga ca fa whatsapp am waaw bind na ko wala acid bind ko léegi bi nga amee portable léegi yan li nga fi wax ah yan yu jag nga fi wax pourtant groupe WhatsApp bi day bu ñu ko jële woon ni Ibrahima Dramé mu la ca Maroc yàlla ko yàlla yokku wér nga xam ne danga nga jàngale boo noppee noppi ca dangay ngay joxe bind boo noppee noppi ca waaye tabarkàlla déglu WhatsApp bu déglu audio kii diw ak diw dañ doon xuloo naa ko déglu ba xam la mu ko wax ñaar ñuy xuloo bu ca sa yoon nekk ñaar ñuy xuloo bu ca sa yoon nekk la waa ji waxoon ka ne ko woon waaw Muawiya ak Aliyu ku ci tooñ loolu la ko wax de Muawiya ak Aliyu ci xeex bañ doon xeex ca jamono yàgg ya ku ci tooñ loolu la ko wax mu ne ko sama loxo mucc na ca deret ja ba faralul kenn ci ñoom ñaar ba ñuy xeex mu ne waaw mu ne damaa bëgg sama làmmiñ mucc ca deret ja ma bañ a faral kenn ci ñoom ñaar mu jax takk maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mbokk yi alayhi salaatu salaam nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm àllaaxira del wax lu baax te noppi te noppi waaw danaay wax ne sunu magum daara xaaj Moustapha Guèye yàlla na ko yàlla yokku wér yàlla na ko yàlla yokku wér sorti barki ñëpp la suñu yaram daw ndeysaan yàlla na ko yàlla yokku wér xaaj Moustapha nee na booy jàng arab dañ lay jàngal man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw ñu ne baatu aw danaan walla mu ne buñ ko firee noonu ci wax yonent bi ndax bu ñu ne walla na wax walla mu noppi day mel ni wax ak noppi ñoo yem ñu ne ko li ñu wax kon mu ne euh, man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut te noppi lañ koy firee ku wax lu baax bu jeexee noppi hmm? walaay noonu lañu ko firi la wax na dëgg waxal lu baax jeex na noppil waaye boo waxee lu baax te noppiwoo danga nga wax a wax a wax ba lu baax li nga waxoon nga far wax lu ko yàq wax ju bari baaxut wax ju bari baaxut ñuy jàngale communication dañuy jàngal nit ne ko moytul wax ju bari wax ju bari baqara ba naa si yàlla rekk la jëg waaw yàlla rekk la jëg kon noppi rek waaw mel ni suñu Cheikh Mbacke radiyallahu taala te kat amoon na lu wax waaw am na lu ma wax de waaye doppi rek <laughs> sëriñ Cheikh moo nu koy nettali ndeysaan mbokk yi min ku noo si sunna dimaas bi jot ci waxtu wii jëlee nañ ci abu muusa mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam dañ koo laajoon ayul muslimiina afdal jullit yi ku ci gën waaw dañ na ko jullit yi ku ci gën am nañu boo leen ko laajoon ñu ne ki joxe juróomi téeméeri xari tabaski wala ko joxe xaftaan ya walla ko joxe xotti ya maanaam daal daal la wutal ci àdduna si nii rek nela la moo ci gën ndaxte nàngam ki laaj-laaj bi nag alayhi salaatu te raw ñépp mu ne ko man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi mu ne ko julli xam nga ko ci gën mooy jullit boo xam ne jullit yëpp mucc nañu ci aw làmmiñam jullit yëpp jullit yu góor yi jullit yu jigéen yi ay mbokkam ña dul ay mbokkam ña ko sori jullit yi nekk senegaal jullit yi nekk algeri ña nekk Bagdad ya nekk Saoudia fub jullit mën a nekk rek mucc na min lisaani wu ci làmmiñam allahu akbar nee na jullit boobu moo gën ci jullit yi ko xam ne sa làmmiñ yu doo ko teg ci dërub jullit di ko ŋàññi mbaa di ko tuutal mbaa di ko yàq hmm? gis nga alayhi sa salaam njàngaleem mi fi ne nit mën naa góorgóorlu ba du jële fi jàmbur mën naa góorgóorlu ba du jëlee fi jàmbur nit mën naa góor góorlu ba takk tubayam nit mën naa góorgóorlu ba takkub séram waaye góor góorloogul ci aw làmmiñam hmm? waaw waaw góor góorlu nga ci yële nag ba ba tabarkal la waaye làmmiñ amagoo ci moyen trois sur vingt ngay am ak deux sur lu tax parce que sa làmmiñ wi ko jullit koo mën a doon ñem ñem nga ko teg ca kawam te ab jullit kenn du ko xeeb képp ko wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kooko war naa mucc ci saw làmmiñ war naa mucc ci saw làmmiñ al muslimu man salima al muslimuuna min lisaan yi wayad yi ak loxoom wayad yi ak loxoom sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane kenn la woon ca ñay jàngale ca zaawiya ba bu nu jeexalee burdu ci at yi nu génn bu nu burdoo ba noppi balaa sëriñ Babacar Sy Mansour di ub jataay ba yàlla na ko yàlla yokk day jox kenn ca jàngalekat yooya ne ko defal ñu bind bindub ñaar fukki minit ak juróom waaye mbokk moomu bindub kero ba mboolem ña nekkoon ci jàkk ji suñu ci xam Tijaan kenn du ko fàtte defe naa aj màkk 2016 wala 17 ñoo àndoon waaye kër bu ñëwee ci min lisaani wa yadi defe na defe na ko noo xam ne ñoon ci jàkk ji ñëpp yóbbuñ njariñ hmm? waaw waaw nee na xoola cër yi doomu aadama yor bopp baa ngi nee lëng biir baa ngi nee lëng tànk yaa ngi fi ñu ne waaw mu lima ba cër yëpp jeex mu ne yonent bi tànn ci ñaari cër cër ban loxo làmmiñ ñaari cër yooyu la yonent bi tànn nee na làmmiñ làmmiñ foo seeni yet jóg mbaa jaasi mbaa fetal mbaa pistolet làmmiñ ko def ñu ne ko ah mu ne waaw foo seen ñu toj ñu yàq waaw fetal jóg yet jóg dënn jóg lemiña bu ko laaj kenn laaj ko lemiñ waaw nañu ndax dégg ngeen ñu ne ko dégg nan kay buubu de leer na nañ mu ne bi ci tege mooy lamiñ mooy santaane ne loxo defal ma nangam te na muq ci biir lamiñ mooy santaane ne loxo defal ma nangam loxo ne lamiñ ne muq ci biir léegi nag ci whatsapp yi loxoog làmmiñ ñooy bokk yëpp ci sallallahu alayhi wa sallam loxoog làmmiñ ñooy bokk yëpp sa whatsapp daa am fooy laal nii rek mu ubbil la ne la dangaa bëgg dangaa bëgg enregistrer ojo <laughs> daa def benn flèche bu vert da benn benn rond bu verte def flèche bu yax ca digg ba ne la soo waxee li ngay wax boo bësee boo ma bësee fii mu yóbbul la ko nga daal di def nii daal di ŋàbb sa téléphone daal dina nogay laay wax ak sa ñaawaay ngay ñaaw gudd euh, gàtt sa jëbu rëy yi sa lex yu rëy yi waaw sa tëlee togg gi <laughs> boo noppee laal ko rek mu ne càwu ca nogay waaw te nogay léegi daa yor daa yor téléphone faxas nit ñëpp waaw xaw ma fu mu ko jële waaw ki ma ki ki ko jëndal na ma baal bëgg maa wax turam <laughs> waaye mbokk yi njàngalem yonent bi jaar naa xool lool dooro xoolal rek ba mu wax min lisaanihi wa yadi ba whatsapp xewagut te jamono ngi ñëw ci kanam lu gën a garaaw whatsapp xew whatsapp fi nekk nii nit ñaa ngi ciy yëddu jël benn application def ko ci téléphone nit nga xam ne bu ne woon yët moom junni nga yëg ne woo na nit ba laaj na ko junni whatsapp yaa ngi toog euh, caméra benn euh, adresse ndax yëddoo ko nit whatsapp yaa ngi génn ay audio di wax lu kenn xamut comme neex rek filmer sa bopp ojo sànni yonent baa ngi jàngale ci suñu bindub tey min kunoo si sunna tontu ko mbokk mi ko laajoon jullit di kan moo ci gën mu ne ko man salimal mi min lisaanihi wa yadihi nan ko jàng bis naka tey moytu audio yi waaw nda léeg-léeg nit waama saraxuma naa déglu audioom <laughs> naa déglu sarax ma rek déglu ko dara nekku ci man ah waaye audio cinq minutes boo ci dégloo fukk ñaata la audio yu cinq minutes boo ci dégloo diis léegi nga am une heure boo ci dégloo vingt deux heures de temps baax na hmm, nga tubaarkàlla ala al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadi yonent bi waxaat na lu jëm ci sàmm làmmiñ mu ne innal abda la yatakallamu bil kalima maa yatabayinu fiiha yazillu biha ila naar abada mimma bayna al mashriqi wal maghrib muttafaqun alayh dana léeg-léeg nit toog ci benn place yëkkati fa genn kàddu yëkkati fa genn kàddu te bàyyiwul xel ci kàddu gi mu mu dem sawara ñu ba max ko ci sawara wa mu ne ca sawara wa départ ca kaw wuti wuti ca suuf mu ne ni asama ni sow ak penku sore nun la sawara wa xóote te benn baata ko fu yóbbu ku def ñaari baat ñu ne mel foo jëm ku def juróomi baat foo jëm mu ku dëkke baat yooyu nag moom fu mu jëm allahu akbar ku dëkke baat yooyu foo jëm inna al abda la yatakallamu bil kalima maa yatabayanu fiha yazillu biha ila nnaar abada mimma bayna al mashriqi wal maghrib benn baat rek yóbbu ñu sawara ñu dugal ko ca ba ko ci biir diggante kéemu ju sawara ak suuf ga soriwaay ba toll na ni as sow penkook sow waxul nag fii ak màkka boobu dafa suuti penkook sow la wax mbokk yi alayhi salaatu wasalaam ci min kunoo si sunna mu ne laa tuksirul kalaam bi xayri dikri laa bu leen bëril wax su fekkee nekkul zikr bu leen bari wax bu fekkee nekku leen di zëkkër mu ne ndax wax ju bari te du zëkkër day rey xol fa inna kasratal kalaam bi xayri dikrillah xaswatun lil qalb waaw wax ju bari day rey xol wax ju bari day wowal xol bu dul zikr bu dee zikr nag da koy tooyal day tooyal xol waaw day nooyal xol waaye bu dul zikr day wowal xol day rey xol mu ne nag bu yomal xiyaamee ñi gën a sori yàlla mooy ñu seen xol wow wa inna abada annaasi min allaahi alqalbul qaasi ki gën a sori yàlla ëllëg mooy boroom xol bu wow yal nañ ci yàlla musal ngeen mucc ci Hmm? yàlla na ci yàlla musal nun ñëpp nu bokk ci mucc mu ne ci hadiis bi ci mujj ci bunt bi la ci jataay bi isaa asbaxa bnu aadam qaala al aadaahu wala fa inna aadaa kullaha tukaffiru lisaan nee na bu doomu aadama su cër yëpp dañuy wax ak làmmiñ dama dama bu xëyee bët bi nopp bi bakkan bi euh, loxo yi tànk yi cër yëpp dañ dañuy wax la dañuy wax ak làmmiñ ne ko làmmiñ ittaqillaha fii na ragalal yàlla ci nun làmmiñ fatt nga nu loolu la ci wax ne ko làmmiñ fatt nga nu làmmiñ alak nga nu waaw làmmiñ dugal nga nu ci musiba waaw ittaqillaa fiina fa innama nahnu bika yow nun yaay sunu njaatige làmmiñ lañuy ñuy wax kat yaay sunu njaatige nun ñëpp yow rek la ñuy déglu yow rek lan topp fa in istaxamta istaxam na soo amee jàmm nu yendoo jàmm boo jubee nu jub boo jubee nu jub way ne wajaj wajaj naa soo dëngee nu dëng teewu làmmiñ boo waxee musiba ba ñuy dóor ñun cër yi yow kenn du la dóor wallaay wax na dëgg cër yi wax nañu dëgg de seen waxtaan wi ak làmmiñ làmmiñ ragalal yàlla nag yow dangay wax ci pénc mi loo xam ne day tax nu pes lex yaa ngi ne mokk ci biir li tax nu pes lex yow ah yaa ngi ne mokk ci biir li tax ñu korpañ gémmiñ yow mi yaa ngi ne mokk te korpañ bi daa si ci yow ci bëñ yi la yem bëñ yi màbb làmmiñ ragalal yàlla ci nun nag waaw ragalal yàlla ci nun nag li leen gis ku ñu duurub kurpañ ci dënn bi yow mii ha léeg sax kuñ cor jaasi yow mii ha waay waay waay làmmiñ nag ittaqilaa fii na mbokk yi xanaa yéen ñi déglu sax seen yaram daw na ci diggante làmmiñ ak cër yi wax dëgg yàlla wax nañ ko dëgg de ittaqilaa fii naa nag waaw wax saw tëjaa nga ma noppi bu ñuy dóor nga ne mokk ci biir waaw loolu nag lu yaatu la yàlla nun yàlla boolee dimbale su ñu ko dégloo ñaar ñett incha allah danañ indi bind bu bees ci min ku nu si sunna eh, tabaarakallaahu di jotaay ñi am dimaas bu jot ci waxtu wi ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala ñu ngi jaajëfal ñëpp di jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si noonu ko dooro si la di wax yàlla na yàlla may nu mën a sàmm sunu làmmiñ amin dooro yàlla na yàlla may nu mën a sàmm sunu làmmiñ jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seen i kayit